jërë ngeen jëf ubbi yëgle kaay gi di Ligzo TV li gën a fas ci bopp xabaar yi mooy ki nga xamante ne bi ñu gën koo xam ci Ousmane Diatta Tukulóor ki ko révélation yi nga xamante bi def na ko ca poti poti duwaay jooju nga xamante ne bi nit ñi ñu ngi ciy wax fan yëpp gars yi ñu déglu ko man moom kenn juma dugal su ma yoon néewul ci kamtu Dubaay su ma yoon néewul ci kamtu Bambilor wala Keur Massar nit ku nekk la la saf yaa xam def ko xam lu tax

bàyyi leen utiliser wu ngeen yàlla baaxul kam tudd bàyyi kam kumbaat bi dox yëpp benn yàlla rek képp rek doom moom rek moo yàq dugg leen seen bopp ngeen yàlla yàlla fay leen ah oh, bàyyi leen wax ju sew di ko rëyal ah oh, man bu leen ma kenn dugal du ma waxu kenn bañ naa ko vidéo yu may def sama bopp rek laay wax xas moom du ma xas kenn nag